naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse del sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan moo xala xew ci réewum askanu sunu gaal gi la xew ca Cees a te doy waar waa ji sant Thiaw am 12 ans dim ndongo daara yëglekaay bi ne jàpp moroomum ndongo daara am bi sant Samba am 6 ans yëglekaay bi ne di ko wulli di ko wullee wullee wullee wullee wulli ba muy lappi-lappi ba mu demee ba sonn ba sonn ba sonn xamul nu muy def moom yëglekaay a eh. kay la di seen responsable daara di kay jàngale ca daara ja nekk foofee ca Thiès ba mu génnee bi responsable bi génnee moom xale bi ne bëgguma ko woon ak faat benn yoon de doon jël aw yet di ko dóor ngir yar ko ndax kat daa mokkul toon li nga ni a la mu war a ko la somba l'observateur yëgle kaay ma moom kay mbir mu doy la tax mu daal di koo suul muy dund moom kay bi mu koy suul sax tànk yaa nga doon yëngu cay Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar bari ay jakarta loolu yëgle kaay bi ne meneen mbir mu yéeme te doy xew Ndiaye moo dugg ci ab lu xar tooxi doona wu wu ngànd wu ponkal yëglekaay bi na ginnaaw coowul député ya fi woon ñoom Seydina Fall Bouganger ak juni mel ci wàllum phobie yëglekaay bi ni ma doomi ministre ba jël na wee te te te te da ngay seet lii rek xale bi laa la wax jàpp nañ ko lu tolloog milliard ci phobie libération yëglekaay ñëw def ca ñàngan mu yaatu lool ubbil yëglekaay bi Cheikh Issa Ndiaye ak complice am bii di Abdoulaye Faye guddi de pied noir la ca Ceeskaay foofee lañ leen jàppee yëglekaay bi ne ca quartier Mbour 1 ca Ceeskaay bennub dëkk ñaari gaar bés bi def ci waxtaan wu yaatu moom itam jox kàddu Cheikh Issa Cissé mu ni damaa bëgg a lijjanti régler quelques jafe-jafe àdduna bés bi yëglekaay ni ma ñii de seen réseau bi base ba ma nga nekk foofee nga xamante ni ca Gàmbi la bu nu wattuwul fa la li ci am ba des daal moo di ñan moom yóbbu nañ ko kooka Pape Kébé day ñi nga xamante ne ñoo di ay naataangoom ñëpp a ngi ànd maase booloo ñaan te itam bëggub libération bés bi la jour yëgle ni ma la kab réclame la libération immédiate du journaliste ñoom neenu nanu ko bàyyi ci ni mu gën a gaawee baataay yëgle kaay bi di bés bi la jour fàttali ñu tuuti waxi kàddu yi xam ne ne moom lañ fi jàpp ngir wàllum délit presse du samay kàddu day kàddu yi bés bi la jour la nay leer Walf Quotidien yëgle kaay ni ma mboole seen ñu nekk ci opposition bi ku jëkk politique gi yëpp ngi ànd marché booloo defub dànk laa wax taxaw ci ginnaaw Pape Alé Niang surtout ay yëglekaay ne ma fi mu toll nii kay jàpp gi nu jàpp Pape Alé Niang le procureur contre tous vox pop yëglekaay ne ma mbir mi di gën a métti coow li di gën bari procureur bi nag daal di taxaw justifié wu ni waa ji daa ay attaques yoo xamante ni ay attaques yu muy répété di ko amal saa su ne tekkat ay attaques am ci jëmmi boppam attaques ci ci am ba moo di organisation yi ak association yi taf ci ginnaaw Pape yokku na lool revue de presse du jour a ko xamle moo xam waa ONG 3D moo xam Pape Djibril Fall CPJ ñoom ñëpp ànd maase booloo di ñaan ñu wàcc ko mu dem ñibbi est-ce que gungu dagg gu ne morom ma lay fekk tax ñi nga xamante ne ñoo di waa presse ànd maase booloo taxaw jàppale ki nga xam ne moo di Pape Alé Niang critique yëgle kaay ma moom kay mbirum Ousmane Sonko ak Adji la presse mal barré moom kay ñi ciy wax di ci àddu nan def ndànk fi mu toll ni tembe ña deful ndànk moo di xam ne ñoo di locataire yaak ña xam ne ñoo moom kër di leen ko luyee

ay kun ci ngoy enquête yëgle kaay ni ma njiitum réew mi sàll ngaar yi président Macky Sall ca COP 27 ba muy ñaax yeneen réew yi ci respecté li nga xamante ni moo di seen ay engagement maanaam yéenu digge woon laas yëgle kaay ni ma sàll ngaari kay ca la nga xamante ni moo di ouverture de la COP 27 ba moom nee na ñëpp asir ngir ñu sauver li nga xam ni moo di planète bi le est-ce réew mi le ba tey ñuy wéy di waxtaane diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi le ki nga xamante ni moo di maître ay kàddu ni Ousmane Sonko di tiital ci li nga xamante ni moo di deretam lànk sax ba ni du joxe toq tiflitam bis bu defee li nga xamante ni moo di tes at ADN bile ñu koy wax ngir mu joxe li nga xam ni moo di deretam jile kenn du ko teree daanu ci réew mi ci biir yëglekaay ni ma ka nga xamante ni moo di fàllu seen mi daanu woon ci réew mi faatu ñàkk bakkanam boobaak ndege ni mu mat ñeenti at ka nga xam ni moo di bàyyam ba day génn na yëkkati ay kàddu ne justice laa soxla moom moo ndax damay réclamer question laa leen di xamante ni ca leen jëm équipe nationale bu askanu sunu gaal gaynde yi ñoom gaynde yi am une concurrence ma leen di laaj ana ban milieu terrain la ñu war a ndax gone yi ci digg bi ci milieu terrain bi koo ci xool rek da naan moo man ka ca des lamb ji dootuma ci des mani wàcc naa bàyyi naa yooyu la kàddu ko ko yëkkati koo ko Papa Sow lay wuyoo ba ñaar fukki at ba mu duggee ci lamb jeeg nëgëni moom Papa Sow nee arrêté bi nga xamante bi lee na ko laataa muy jël dëgg nag am na carrière bu ruus ndax 23 combat la am 9 défaite la ci am est yi carrière bu ruus rek ka jara sàkku mi nga sëy laatiir bu baaxee rek ba clavier ñu dem ba suba jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jaageen jëf ay ca mi ngi noonu mbokk xarit yeeg dëkkandoo yi jërë ngeen jëf jaageen jëf a jaaraama njokkoo njal merci beaucoup thank you euh, grâce euh, grâce mille ah yéen ñëpp bëgg naa leen jox leen seen waay kontaane leen bu baax a baax a baax di kontaan ci sama mbokk yi xarit dëkkandoo yi café gi nee naa leen dañ koy naan ba simbaleexu man ak yéen Amina Ndiaye naar maa ngi lay bëgg baax a baax jox la sa wàccuwaay kontaane la kontaan ci képp koo xamante ne rek yaa ngi may bàyyi xel ah, di kontaan ci ñi nga xamante ne ñu ngi may teewlu euh, un peu partout nag ci réew mi ak bitim réew euh, bu ma limee damay juum bëgg naa ñëpp bàyyiwuma kenn nuyu naa ñëpp comme ni ma koy faral di waxee saa su nekk <laughs> daal di jox ñëpp nag seen wàcc waaye kontaane leen encore une fois waaw doole jën ndox la waaye ñun ñi nga xamante ni yéen a ngi ñuy teewlu euh, suñu doole yéen la euh, bala may sori rek ma jaajëfal Malick Sarr mi nga xamante ni saa suñu fi nekkul rek daf ñuy jàppal tànk nekk ci liggéey bi di ci def liggéey bu am solo donc Malick kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax euh, ña moo sekk maa ngi koy biggi bu baax a baax Aboubacar Daabo kooku sama xarit la Papa Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Dame Kounta maa ngi koy nuyu a Touba di bëgg képp koo xamante ni rek yaa ngi may teewlu euh, Mor Sarr Ndiaye ñoom ma ñoom Madické ñoom Bàcc ma Samba gaa yëpp maa ngi leen di bëggee di leen jox seen waaye di leen kontaane kontaan ci képp koo xam ne rek yaa ngi may bàyyi xel Bamba maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee képp ku ñuy teewlu euh, ci biir réew biti réew di nuyu waa Italien waa Brésil ah, waa ah, Angleterre waa Brescia bàyyiwuma kenn kenn fépp fu waay nekk ci réew mi ak ca bitim réew maa ngi lay bëggee waaw ah te samay soppe fi nu nekk macha allah foo dem ci réew mi ña ñuy biggee Fall Dammel la nga fa ñi koy partagé ci ci ci groupe WhatsApp yi nag kenn xamul nuñ toll ñooñu faaw ñu leen di jaajëfal ndax wax dëgg yàlla am kontaan naa ci ñoom waaye bég naa ci ñoom waa ñi koy partagé ci group WhatsApp yi waaw béggee naa leen béggee naa leen moo xam jeunesse Thiénaba bi ah moo xam Tine Info. moo xam Fall Dammel ak kafe gi groupe Fall Dammel ak kafe gi ñoom it bëgg naa leen jox leen seen wàccuwaay waaw bëgg naa leen groupe bu groupe bu café gi ku ci bëgg a dugg da ngay def 78 453 48 86 bëgg naa ñëpp nag bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn kenn képp koo xam ne yaa ngi may teewlu rek bëgg naa la jox la sa wàcc wàccuwaay waaw. mbokk yi kon xarit yi dëkkandoo yi xam naa ni noonu rek la ñuy daal di euh, kii rek ñaanalante ba subaa jàmm ak salaam waaw talaatay jàmm ak salaam laa leen di ñaanal nag yéen ñëpp ñëpp ñëpp macha allah.